ay semaine weesu eh, ci li nga xam ne rek xewoon na fële ca eh, camp pénal eh, gannaaw ba nga xam ne rek ñi nga xam ne ñoom ñooy gardien yi doon jàmmaarloo at détenu mbir moomu nag daal dina am ay rebondissement ndaxte gannaaw ba ñu defee ab l'enquête gis nañu que ne mbir moomu le wa déclenché woon benn fuy boo xam ne rek amoon na ci cellule camp pénal yi dafa jël beneen direction ndaxte benn détenu moo daal di affirmer moom nag ci ay photo yoo xam ne eh, gis na ko loo xam ne rek moom dañ doon ko mal eh, traité ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy gardien yi fa nekkoon ñoo doon ko mal euh, traité d'après vidéo at image yi nga xam ne daal nañ ko gis bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Les Échos moom mi ñuy xamal que ne kii maanaam euh, détenu boobule moom moo daal di wane euh, preuve yooyule ndaxte gis nañu ci vidéo yi ñu wane détenu boobule ñu daal di koy bandaasal bopp bi waaye itam loxo yi ñu daal di koy bandaasal waaye nag loolu yëpp li ko waral mooy que ñi nga xam ne rek ñoom ñooy gardien yi nekkoon euh, foofulee ci camp pénal ñoo ko jàppoon dab daal di koy euh, dóor ba mu am ay gaañu gaañu loolu la ñu journal bi daal di euh, xamle ba ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay waajuru boobu boobule ñoom nag jamono ji nee nañ dinañ porter plainte ndaxte bu ñu demee ba détenu yi nekk foofu ca biir prison ba ñu leen di daal di dóor di leen maltraité donc enquête war naa def liggéeyam loolu mooy li nga xam ne rek daal dinañ ko nemmeeku fële ca champ pénal gannaaw bi nga xam ne rek euh, ay mbir amoon na fa semaines yi nga xam ne rek moom lañ génn